tey jii nag di bis boo xam ne kenn du ko fàtte ci taarix muy le 22 décembre 2021 di bis boo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa murid yëpp moo woote fii di sant sunu borom tabaaraka wa taala ci li mu ñu booleeg Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul bis bi nag mu di ko njukkale maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina woo Baye Fall yi ak mbokki taalib yi ñu. fas yéene ko def vingt 24 heures yoo xam ne ci zikrullaay la ñuy def tudd yàlla tudd yàlla nag nekk loo xam ne nii sunu borom moo digle ñu koy tudd di ko fàttaliku lu bëree bari ndax moo wax ci alquran ne yaa ayyuha alladina amanu zkurullaha zikran kasiran wa sabbihu bukratan wa asilan mooy nee leen ma tudd lu bëree bëri damay sabbaal suba ak ngoon waxaat ba tey ne ñi nga xam ne ñooy borom xel yi ñooy ñi nga xam ne dañuy sax di fàttaliku sunu borom inna fi xalqi samawati واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار loolu mooy ñi nga xam ne ñooy borom xel yi di xalaat sunu borom dëgg-dëgg di ko jox waa àqam ak gëddaam waxtu wu ne dañuy fàttaliku sunu borom di ko tudd mu mel ne fàttaliku yàlla di ko tudd di tudd turam bu sell bi di ko màggal. loolu mooy li nga xam ne moo wutale ki gëm ak ki dul ki gëmul mooy kennal sunu borom tabaaraka wa taala Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouride nag yàlla boole ko sëriñ Touba ci tegtal ko Cheikh Amadou Bamba ngir mu jox ko boppam ni ko sëñ Moussa Ka waxe ne Cheikh rek bi muy xibaar ak jébbulamu wax na ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba ne moo la moom rasu ko jox ko say pex kon Cheikh Ibra sunu borom mi ko bind moo ko boole sëriñ Touba may ko ko mu moom ko. loolu nag day nuroog li Serigne Touba waxoon ne dallan yàlla ala muhammadin wa qaadani muhammad li samadi yàlla sunu boroom mi ma bind moo ma tegtal Seydina Muhammad salaam may jëwriñam kon dafa mel ne ki Cheikh Ibra ak ñëw ci sëñ Touba ci ndigalul sunu borom la waaye bi mu ñëwee ci sëñ Touba nag mu indi fa doxin woo xam ne nii wan sëriñ Touba ni ñuy jariñoo ci moom saxoo it tudd baatub yàlla mooy zikrullahi ak xitma mooy liggéeyal sëriñ bi kon nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha bu demee ba tànn bis bii di ci sant sunu borom njukkale Cheikh Ibrahima Fall mi ngi fàttali murit yi fàtte woon taxawaayu Cheikh Ibrahima ak doxinu taalibe mi ngi soññ ñi nga xam ne seeni dox yeexoon na waaye mi ngi xamale ñi nga xam ne xamuñu woon kon Cheikh Mouhamadou tax ci di bis bi bisu fàttali la bisu soññee la bisu xamle la ngir murit yi xam gën a xam fi ñu teg seen tànk lu àdduna mën a jafe-jafe lu yëngu-yëngu mën a bari ñu gën a xam kan mooy Serigne Touba gën koo dund dama yaakaar ne sëñ Mountakha woo murid yi ñu gën a dund sëñ Touba te xam ko loo gën koo xam gën koo dund gën a xam li ko yàlla sunu borom may gën koo fonk gën koo wekk ngir sunu borom Touba mi ñu booleek moom te gisuñu lu gën a rey Serigne Touba gisuñu lu ëpp Serigne Touba Serigne Touba moo war a nekk sunuy bët sunuy tànk murid bu ci nekk lépp looy yëngu ak sa dal ci sëriñ bi nga ko war a nga ko war a def na ko fi yàlla yàggal lool mu ànd ak wér waaye ñu gis ne bi bi ko sunu borom tegee ci boppu yoon wi ba tey la nga xam ne moom la ko fa ñëw jiitu nekkoon ci xam ne sëriñ bi ak soññ murit ñi dund sëriñ ci loolu la nekk waxtu wu nekk mi ngi soññi ñu gën a dund sëriñ Touba Baye Fall yi nag lii wane na ne kon na Cheikh Ibra nekkoon Babul Mouridine ñoom it loolu lañ war a wane waxtu wu nekk Baye Fall fu nekk. dund sëriñ bi ak kennal ko ak sellal ca nekk ak wane sëriñ Tuubaa ci la war a nekk ni ñu jàngate bis bii daal mooy sëñ Muntaxa ci bis bii ñun suñu xalaat ñetti mbir daja nekk sëriñ bi mi ngi xamal ñi xamutoon kan mooy sëriñ bi ak nan lañ ko war a dundee sëriñ mi ngi fàttali ñi nga xam ne dañoo sàgganoon ñu dellu si seen xel gën a dund sëriñ bi te xam lañu am mooy lan sëriñ mi ngi soññee ñi nga xam ne ñoo nekk ca yoon wa ñu gën a góor xam ne fañ teg seen tànk noonu la kon nag Mbàkke yàlla na ko yàlla yàggal lool mu ànd ak wér ba li mu yéene liggéeyal maamul Serigne Touba lépp mu def ko ba defee lu kawe njortam ñi ngi koy ñaan sunu borom di ko dagaan moom mi nga xam ne lépp moo ko man lépp moo ko am yàlla ñu ngi lay dagaan loolu ci barke bi laa ilaha illallah nga may ñu Serigne Mountakha yàlla yàggal nga yàggal ko loolu mu ànd ak wér zikrullahi bii nag muy baat boo xam ne yonent bi sallallahu dafa de man qaala laa ilaha illallah muxlisan daxalal janna képp ku wax laa ilaha illallah tamuy dëgg ci yow kenn mun laa ci tabbi aljanna loolu nag kon maam Cheikh Ibrahima Fall baat bi gën a rëy baat bi nga xam ne mu wax bu doon lépp foofu la ko yàlla baaxe mu téye foofu di ci liggéeyal sëñ Touba ba am li lu kawe lu kawe njortu kon nag ñuy soññ ñëpp ci lii sëñ Mountakha woote muy zikrullahi ak sellal bu ñu fi jógee ñu xam ne lii ab tàmbali la waaye képp ku sàgganoon war ngaa góorgóorlu képp ku xamutoon war ngaa xam képp ku nekkoon ca yoon wi war ngaa góorgóorlu gën a góorgóorlu teg sa tànk te xam ne Serigne Touba mi nu am kenn amu ko ko am lu kenn amul nag danga koy fonk jàppee ko ko noo xam ne nii nu nu nu kawee njorte ñëpp la kon nag ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan rek yàlla yàlla na yàgg mbakk ñi ngi ñaan yàlla na yàgg sëriñ sëñ sëñ mun Muntaxa yàlla na yàgg te Muntaxa mi ngi delloo siwaat murid yi ci ñu dund sëriñ Touba gën a xam Serigne Touba ñu ngi koy ñaan mu yàgg lool te ànd ak wér ñu yàgg koo def yàgg topp ci gannaawam mu ni digal muy def mu ni tere ñuy bàyyi ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mourid jërëjëf suñu addi